man man Beydi Seye Mamadou Beydi Seye laa tudd mais Beydi Seye la ñëpp xam man maay maire Ndiarème du Mamoulaye nekk au conseil tamit nekk nag taalibu Serigne Saliou ba mu jot tak profité nag comme maa ngi doog a jël euh, euh, ñu ma waxal ci xew-xew fan yi ma ma ma ma jaale ñëpp suñu sang bi suñu xarit bi suñu wëllëri mu Cheikh Béthio Cheikh Béthio mu Serigne Saliou man ku ma xam-xam ne man alalu Serigne Saliou laa te li may wax gaañ rek dama leen Serigne Saliou wanewaat na boppam ci mbiru Cheikh Béthio yi kon ñu ngi santaat baax Serigne Saliou di ko gën a sant nag ci nii mu def ci Cheikh Béthio muy ndimbal ci ñun di tawféex ci ñun képp kuy taalibe sa xel dal li ñaanal nag ki nga xam ne mooy Serigne Mountakha ndax Serigne taxaa yàlla na gën a yàgg ndax lii mu def kat la kilifay def bu ñëpp jëlee décision moom doo nga am sañ-sañ dindi te moom doo nga xam fu mu jëm moom doo nga xam li gën ci ndax tey mooy Serigne Touba kon loolee mu def jëfu Serigne Touba la ndokkit bi ko famille bi nangoo taalibe yi nangu mais tawféexu Cheikh lu ma xamal sama bopp la ndax sëñ Munta la sëñ Taxa alalu Serigne Saliou la te ku xam Serigne Saliou xam seen diggante xam ne moom lu mu def tey jii Serigne Touba ko def loo kon maa ngi jaal mbokk yëpp askan bi yëpp mbokki taaliba yëpp ak mbokk jullit yëpp ak ñu dul jullit ñëpp ndax Cheikh Béthio dama ko xamoon lool ndax 1984 ba léegi ni ñu ngi ànd 1990 la ko Serigne Saliou yebal mu ñëw sama kër def fa ay cant ci ñu mu jëkk def ay cant ci kër gi man ci laa bokk bi loolu am nay fan kon maa ngi koy maa ngi koy ñaanal sëñ Saliou ñu mu taxawoon ñu gën a taxawoo rek ñu sëñ Saliou wa tawfeexam wàcc ñun ñëpp wàcc ci dëkk bi wàcc rek président de la république. ma profité nag ci jotaay bi li ma wax sànq jaale ñaar kenn ki ñëpp xam nañ suma diggante moom muy seen Cheikh Béthio yàlla na yàlla dolli leeram def ko ci sëñ Saliou am naa waat na boppam

li jëntit ma nangam ak nangam ak nangam dama ko yóbbu kër Serigne Saliou barke Serigne Saliou mu ngi ci dëgg maa ngi ci fekk taw laa ba taay bu ne million bii ak bii ak bii ak bii dama bëgg nga li jëntit ma ko dama ko war yóbbul Serigne Saliou boobu du tey de 84 85 kon xam nga loolu am na fan ma nekk tout temps mais suñu borom teel ma defal ma mën a jaxasoo soog ñoom fekk na ma kër Serigne Saliou ma jàngale boobu professeur daal di Blaise Diagne ma dem ba àll ma ñëw ci proviseur ma ne ko damay def Touba parce que sëñ Saliou laa nekk mu ne ma ni ma la gisee xam naa ne nekkul ma ne ko damay ne moo def ni sama ko daal man daal mënu tey daal sëriñ bi rek laa naa ko ko rek delloo ak yeneen yoo xam ne ànd nañ ko ba ca ba may dem di yeesu ci seen Cheikh maa ko fekk Boustan mu toog doom ma toog ci wetu seen Cheikh mu toog bi ma toog mu seen Cheikh toog ma ne seen Cheikh man de damay yeesu ngir war a yeesu ma ngir gëm ndax mënoo ma defal dara dara dara dara ndax man sëriñ sax defal na ma noppi keroog àll àndal di ko jooy seen Cheikh bu koy fàttaliku dee dee rek. Cheikh Béthio docteur ma ne ko ndokk ba ñëwee fii ci bustaan fekk fi rek ki nga xam ne maa ngi moom nga daan tas buntu sa buntu néeg wuy terme kon xam nga ànd bu yàgg la 84 bu tey ay fan la bon sant nañ daal mais nu ngi koy nu nu ngi santaat baax ci ni mu demee santaat baax ci ni ko sëñ bi téye santaat baax ci ni mu sëñ bi wanee ne moom di sëñ du ko foyee sëñ Tuubaa foyee wu te ku detteel ñu Sëriñ Tuubaa Sëriñ Tuubaa wan la ne la mission kenn du ko detteel kon ñun dañu war loolu mënu ma ko bañ a. des mooy sëñ naa Mame Goor Sall sëñ Cheikh sëñ euh, sëñ Abdou Karim wuy jur bi suñu way jur la kooku aussi xam nga ne ñun ñëpp ko ñàkk kon loolu aussi dañ ciy bàyyi xel sëñ ci àggee moom xam naa ni ci war ko def ci ñaan wante ñu rek ne ñun ñëpp ñoo bokk bii kat nekk fii desal ma dara ñëw ñu ngi fi. kon ni leen ñaanal yàlla barkeel leen li may faral di wax rek bari le moom barkeel lee ko gën kon yàlla nañu yàlla barkeel suñu lépp lu ñu laal yàlla nañ dajeeg ngërëmal sëriñ bi loolu daal laay ñaan yàlla nañ ko yàlla defal defal ñu ko ñun ñëpp ñu yàgg fi tase bàyyi laaj yàgg fi lool moom it dund lool ba doyal sut fan way juróom yëpp des ci seen barke yàlla na ko yàlla def defal leen ko defal ñu ko ñun ñëpp barkeb sëriñ Saliou Mbacke barkeb sëriñ Saliou barke guddi gi jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf